di sant bu baax ci ñëw bi ñu ñëw fii tey di nuyu monsieur Guèye madame Guèye ñu ñu dalal di nuyu seeni xarit ak seeni ab ni jàmm yi nga xam ne ak euh, ñëpp ñoo xam ne bëggoon nañ ñëw te yàlla def ñëw egseeguñu wala ñëwaguñu di nuyu la presse nationale ak seen représentant yi di nuyu notre groupe là d'artistes qui sont très très bons di nuyu notre vice-président bi nga xam ne mooy représenter la lutte avec FRAPP toogal fi président bu mag bi muy Bira Sène di leen nuyu yow Pape Alioune le présentateur ak notre frère Bara ak monsieur Tall voilà di nuyu ñëpp daal en un di leen sant bu baax ci dalal bi ngeen ñu dalal fii tey chez monsieur Guèye et di ñaan yàlla ñu egg ci jàmm ci dimanche ñun ñëpp ñu fekkee ko tal ko mu nekk fête bu mag fête de la lutte bu ñu tuddee drapeau monsieur Guèye mm-hmm. à travers toutes ses activités pour le développement de Mbour et du Sénégal mm-hmm. dafay mel ni Sénégal yëpp lañ ko defal waaw jeune boo xam ne yaa ngi taxaw ci luy avancer si sa réew kooku luñ ci def rek dañ koy xeeb franchement voilà donc drapeau bi nga xam ne moom la ñu def di ko def fële le 22 incha allah muy lutte avec frappe damay ñaan yàlla bu ko temps bi mayee balaa saison bi di tëj ñu ñëw nag fekk si leen mbuur nag ngeen xam suñu mëneel boo xam ne day doon lutte traditionnelle ñu def ko drapeau bu exceptionnel kenn du fay jeunesse su mbuur yëpp génn loolu moo am njariñ nit buy defar da koy defar loo xam ne moo koy avancé loo donc loolu xalaat bu ma xalaat la te incha allah xam naa ne yàlla dina ko mottali voilà donc ñu ngi seen ginnaaw foo leen ñuy woo rek bu soobee yàlla ñun dañuy sawar pour wuyu si leen parce que luy avancer Sénégal rek moo ñu ñor ci li ñuy def man ci làmb ji lañ ma gën a xamee mais man architecte la décorateur la maa ngi amee diplôme États-Unis fu état bu ñuy wax Florida ñu bari xamuñu loolu ci man lépp lu may am jëlewuma ko ci làmb ji sama liggéey laa ko jële di si comp di dugalaat ci làmb pour jàppale xale yi mu ngi wax foofu sànq naan bu saison bi di ubbi damay jënd ay licence du ren laa koy door a def président may sa xam na si dara cette année là rafeyal nañ cent vingt huit mbër licence mhm. loolu c'est le minimum parce que xale yi amuñu bëgg nañu ay sportif lañ ay sénégalais lañ di suñuy doom suñuy jarbaat suñuy rakk li ñu yàlla wërsëgal suñ si mënee comp jàppale leen si pour que li nga xam ne moom mooy seen mbëbët muy sport ñoom ñu mun ko gën a def dañ ciy sant yàlla parce que du suñu man man du suñu dara mais yàlla moo ñu teg ci position bu ñu leen war a mën a jàppale donc on est obligé de le fair donc muy ay année yu bari yu ñu ko def donc di sant yàlla bu baax ci mën-mën boobu ñuy jox ak xol bi mu ñu jox ba ñu mën ci comp di joxe ndax comp joxe yombul voilà donc yàlla nañu yàlla defal jàmm bala le 22 di nuyu nag sama sœur spécialement la puissance totale <laughs> ak acolitam <laughs> lépp ñu delloo ko ko ndax lépp moom la gis nañ coono bi muy daj ci samay combat yëpp moo koy monté yëpp combat yëpp day ñëw ne ma lii ak lii la ñuy def ma ne ko ay ca loo wax rek loolu te jigéen bu mën góor la voilà donc ñu war ko jàppale moom tamit mu am si drapeau bu exceptionnel muy combat spécial bi xam naa nag euh, drapeau boobu moom doo ko waaje Mbour doo ko waaje Dakar fi nga koy waaje rek mu nekk benn délégation dugub bi nekk benn quoi voilà maa ngi leen di remercier yéen ñëpp ci ci ci ci ci teewaay bi di ñaan yàlla rek ñu gisee waat ci jàmm dimanche et la la la la fête soit belle voilà merci